81 08 incha allah boo dugg see moom duñ la wax xaaral ba ëllëg déedéet bu la neexee bala ngaa coupé bu la neexee boo coupé ba noppi ñu daal lay tontu incha allah sëñ sayit naa bisimilah aouzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi allazi yubaddilu sayiatan hasanatan wa yujsilu wa salawaatuhu ala man xubbila jamiu ma ata bihi wa fuddila waltaqini ahwala yowmi alxasri wa li yakun fi abadin bi bisri mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki way diglukat yi Baol Média moo xam yu góor yi wala yu jigéen yi fu waaye mën a nekk noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara kenn ku ci nekk rek di la ndokkeel ci saw tur ak ci saw sant waaye nuyu boobu ak ziyaar bi noo ngi ciy jiital alxalifatul am muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Sayxul Xadim noo ngi koy nuyu baax te di ko ziyaara di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne moom la naalal Seexul Xadiim mu mottali ko te ñu ànd koog moom. kasaalika itam noonu la ñu nuyoo sëñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda moom mi nga xam ne moo fi toogee jataay bi maam Cheikh Ibrahima di ko nuyu baax te di ko ziyaara di ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne moom la naalal maam Cheikh Ibrahima Fall mu mottali ko te ànd koog moom. Hmm. waaye kasaalika itam noonu la ñu nuyoo Cheikh Mahamadul Moustapha Mbacke. ibnu cheikh sidi al maxtar mbakke moom mi nga xam ne moo fi toogee jataayu cheikh mohamadul amin baara mbakke noo ngi koy nuyu baax te di ko ziyaara di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne moom la naalal cheikh mohamadul amin mu mottali ko te ñu ànd kook moom di nuyu mbooleem xalifa sénéraux yëpp rek fooy mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu waa ahlu rajo Bawol Média li ko dale ca bopp ba Serigne Mouhamadou Diop Thiat ak mbooleem koo xam ne yaa ngi ci kër gi di fi kër këree rek noo ngi lay nuyu te di la ziyaara di ñaan ci borom bi subhaanahu tax laa mu suqali barab bi ba yéene ji nga xam ne moom la sëñ du am mu mën koo mottali ci teegi bakkanam nu ànd kook moom waaye di nuyu ki nga xam ne tey moo ñu nekkal ci xarala yi muy soxna Awa Diop loo ngi koy nuyu bu baax te di ko ziyaara te rafetlu liggéey bi moom mi nga xam ne moo ñuy seggal wax ji dina ko sànnel ci jaww ji maanaam ba kenn ku nekk fa nga nekk nga ci man di jot nam gën a leere jërëjëf sëñ Mass amaan nañu mbégteeg bànneex ci feggoowaat ak yow ci Euh, rajo Baol Média ci jataay bii di jataay jataayub diine ñu baaxoo di ko amal ci guddik ajuma bu jot bi max na alxames ci waxtu wi noo ngi lay fay ab nuyoo te lay nuyu di la ziyaar bu baax di la ndokkeel di am mbégte lool ci euh, jataay bi tubarkalla di nuyu bokk yëpp rek di wax eh, ahlan wa sahlan bismillah sëñ Mass jërëjëf kon sëñ Seydina Diop Bichri na ngi koy siyaar baax a baax nuyoo bi mattale na jot na mattale na yàlla nañu ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal ñu yàgg koo teewe kon tetal ko kon xam naa incha allah soxna Awa Diop moo bi saa kenn fëggee ci 88 628 19 05 rek dina la bàyyi nga jàll si ci jataay bi laaj ak tontu ci wàllu diine ndax boo gisee ñu wax diine ak aada léeg-léeg diine day am lu mu àndal aada lànk ca léeg-léeg am ci loo xam ne aada da koy nangu ba noppi diine lànk ca su ko dee léeg-léeg dafay jaxasoo ndax diine dafay fekk aada bari na ci yu bari yu mu lu continuer ko bari na ci yoo xam ne yu bari yu mu ñaaw la supprimer ko kon moom ak aada dañuy ànd kon si si na incha allah nu daal njëkkanteeg waxtu rek incha allah. mu ngoog euh, sëñ Mass jërë ngeen jëf euh, bokk yi ci teewla gi yéen ñi nga xam ne yéen ko kale ci 88 point 5 xam naa incha allah ci kanam tuuti rek képp koo xam ne bëgg nga ànd ak ñun ci jataay bi moo xam nga bëgg indi. Euh, Euh, ay njàngat ci liñ bëgg a waxtaane wala itam nga am laaj bu jëm ci diine boo jaaree 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 yoon yooyu mooy ñaari yoon yi nga xam ne ku ci jaar ku ne di nga mën a agsi bokk ak ñun jotaay bi incha allahu taala sëñ Mass dañuy baaxoon ak ñaare saa bu ñu agsee bala ñuy tàbbi ci laaj yi nga xam ne moo fi jot a ruus dañuy laytaay ay tomb di ko ubbee jotaay bi Eh, saraaxa ko maanaam ba bokk yi nga xam ne ñoo koy déglu ñu mën cee jariñu waaye ñun ñi tamit ñu mën cee jariñu bu baax a baax tey nag damay ragal ne waxtu yi xaw nañoo jatt-jatt goo xam ne liñ bëggoon lay taay gëw ma dana jaxaj waaye du tee dañ ciy nekk rek incha allahu ba lum ñu may rek ñu jël loola hmm. eh, tom bi ci njëkk sëñ Mass tey dañoo bëggoon a waxtaane eh, xam naa lu jëm ci wàllum hôpitaux yi te buñ ne hôpitaux yi maanaam mooy hôpital yi mbir yi ciy xew hmm. benn nga tawat dem fa mbaa nga tawat le bi max naa euh, nga nga tawa yow sa jëm bopp wala itam nga am ku tawat yóbbu ko fa dañuy seetlu ñaare coono yi nga xam ne moom lañ fay teel ci wàllum dem beeg dikk beeg ba ci ba ci ni leen di accueillir léeg-léeg mu xaw a des euh, sonn fa coono goo xam ne ak seeraayu ordonnance yi euh, bind di la jox ngay dukk-dukki dang-dangi ordonnance yu seer yoo xam ne faw noo mën a def ba jënd ko di nga ko def ndax ak wér rek moo la ñor benn mu yow mi nga xam ne yaa tawat rek moo la ñor ki nga tawale tamit yóbbu ko faat boo sañoon day wér moo tax lu ñu facturé jox la rek da nga def euh, ndeysaan ay pexe ba loola nga jënd ko rax ci dool itam dañuy seetlu ñaaree suñu borom bu ñëwee dogalam euh, bi max na yow mi tawatoon nga sa bakkan ci wala nga tawatle ka nga ko yóbbu woon bakkanam des ci dañuy seetlu ñaaree sax nga xam ne kon ñoom laaj bi day dem ba ci boo boo boo boo boo faatoo sax bala ñu laa génnee dañuy sàkkab lim boo xam ne moom nga fay bàyyi da ngay joxe nàngam ci ab lim lim bu takk boo xam ne moom ngay joxe nga door a génn ñu mën laa jébali sa borom wala ki nga faatule itam da ngay joxe lim sàngam euh, nga doog a mën a jot ci ki nga faatule man koo jébali boroomam sëñ Mass loolu ban jàngat nga ci def ndax tamit noonu la war a demee wala déet beneen bi itam mën naa ko boole sëñ Mass waree nga ñëwandoo ci ñaar yëpp euh, wala bu ñu rekk yi tamit ma bàyyi la nga joxe jàngat bi euh, boo noppee ñu tàbbal beneen tomb bi incha allahu taala sëñ Mass jërëjëf Serigne Seydina ci question boobu ndeysaan moo nga xam ne wax na ko mu doon loo xam ne ñëpp ci euh, teg seen bët ku ci tegul sa bëti dégg nga ko ci sab nopp mu doon lu yéeme loo xam ne foo ko takk rek passé na ko Serigne Seydina xam naa mm. nag loolu moom ca dëgg dëgg dëgg xam naa ci réew yi maanaam Afrique yi la yam waaye bu fekkee bitim réew la lu mel noonu du fa am fi ne ñoom mm. euh, lu ci ëpp ci même sax maraat bu fekkee dikk na liñ ciy njëkk a def rek mooy daal di ci taxaw seen kem lay kattan mm-hmm. faj ko kem seen kem lay kattan baanaam duñ sax xaar ay bokkam ak yoonu mel ñoom dañ ci daal di jublu ngir fas yéene koo xettali ci tàng tàng eh, ah, di ko faj di ko faj ba keroog ay bokkam di ñëw te bu ay bokkam ñëwee te yuruñu du tee dañu continuer seenum faj ñoom buñ noppee ne door a facturer nu mu ko mën a fayee nag ndànk ndànk baax na waaye duñu wax du génn eh, yooyu ñoom dañ cee am ay social yu am solo yoo xam ne man nañ ne am na ñoo xam ne sax buñ entré hôpital yooyu maanaam duñ bëgg a génn ndax neex gu hôpital ba di neex ndax sax ñaari waxtu wala ñetti waxtu rek ñu laal dorop boobu laalaat beneen lekk gi gun teg rek bu noppee ci ab diir ñu tegg goo ko tegaat geneen noonu lañ koy toppatoo moo xam ku ñu xam la moo xam ku ñu xamul ay bokkam la noonu lañ koy taxaw seen kéemtalaay kàttan su fekkee sax nit dafa taxaw ci mbedd maanaam ñaar lañ koy laaj bu fekkee ne dañ ko laaj loola daal mun a dara police ko fay jëlee suñ ko nee loola daal mu am lu mu jàmbat rek ah, ambulance daal di ko fay jëlee ambulance bi direct ca hôpital ba la koy yóbbu ndeysaan di ko taxaw seen kéemtalaay waaye bu dee fii ci Sénégal daal li ma gën a jaaxal bokk na ci noonu nga ko waxee léegi ci wàllu maanaam métti gi ndax fi ne rawatina sax jamono siburu yi mboolem hôpital yi bare bare doona yokk seen i eh, maanaam yi ñu daan dagg mboolem ko daan dagg eh, ticket waaw ticket 1000 francs léegi 2000 lay doon lu loolu bu fekkee ne eh, ah comme maanaam ñi siburu bari nañ ndax jamono siburu lañ toll moom daanaka hôpital yëpp dañoo fees del del del te ñu yokk maanaam ngir nit ñu malaad yi bari ñu war a wàññi far yokk waaw soo ko defee it euh, maanaam euh, te li gën a yéeme bokk na ci urgence ngay dem xam nga urgence li daan li ñu daan tuddee urgence mooy da ngay essayer léegi ñu daal lay jublu ci yow rapidement ndax urgence lañ koy wax mm-hmm. nga ne bu fekkee ne nangoo dem urgence da ngay jaar ci feneen ah ñu def ndànk par ndànk ba keroog ngay dugg waaye bu dee urgence moom waratunoo xaar te urgence léeg-léeg nga dem urgence sax am fa waxtu maanaam duñ ko sax tudd duñ ko daal ndax xam ñoom euh, lu ci ëpp mm-hmm. ñoom dañoo tàmm ko dee comme taamu nañ ko dee nag yow mi nga xam ne yaa indi malaat wala ñu indi leen maanaam loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti du tax nu faale ko ñoom day def dégg déggaaral waaye rek li nu gën a yéemati bokk na ci siñ ci daam mooy nit ki nekk ci ab hôpital di faju lu mu am jënd analyse yeeg rajo yeeg eh, maanaam lépp la éco yeeg leen lu la dugg ci ba dara di su lu ndeysaan kooka faatu daal ñu daal di facturé waat nag ne 400000 wala 300000 lay fay door a génn. man daal ab niiw daal wax dëgg yàlla xam naa Sénégal moom. <laughs> loolu moom te dëgg-dëgg gouvernement bi ak ñu am sañ-sañ mën a wax war nañoo fexe ba mboolem ñuy faatoo ci hôpital yi moom. Eh, maanaam ñu di leen libéré noonu rek te xam ne eh, ki ñàkk moom yaakaar naa ki daan faju di faju di faju ba am fa lu weer wala ay fan. faatule yaakaar naa ku ko dóolit waroo koo waroo koo laaj yaakaar naa bu ñu daan def ko fa faatoo rek léeg-léeg ñu yaa di yëkkati cent mille wala cinquante mille ne lii kat euh, jàpp leen ci nga xam ne ci la mën a jële oto bu ko yóbboo armeel yaag ci lañ ko mën a taxawoo soo toppatoo ko yooyu yëpp loolu lu amoon solo la waaye nag da nga ci gis ñoo xam ne sax seenu niiw dana fa am euh, bis bu si mhm. am ci ñoo xam ne dañuy dem a dem ba mujj dañ naan nañ ko fi baax man gis naa ci benn waay boo xam ne euh, doomam ji nga xam ne ndeysaan ab li liir la woon bi nga xamee ne na foofu ci hôpital bi mhm. maanaam lim njëkk def rek ndeysaan daa mujj ne leen jël leen niiw bi jël leen jël leen néew bi ndax comme moom ñàkk na fu la mat ay 500000 francs ba noppi wul bi ko ñu ñu ko laajaat ay 400000 na ko boo joxoot 400000 euh, duñ lay dox liir bi dafa mujj na baleen ko fi nga ne ay lijjanti lañu def di li def lijjanti ba mujj ñu fay deux cent mille waaye daal wax dëgg daal man daal loolu damaa xamul ban programme la mhm. buy waral daal nit faatoo ca ab hôpital mhm. te bala caa seen borom a fay cinq cent mille huit cent mille sept cent mille mhm. hôpital yi gën a rëy ci biir Touba ñoo fi gën a tee garaaw hôpital bu ci gën a rëy rek moo la ci gën a garaaw ndeysaan léeg-léeg fii ne même euh, euh, bu dee hôpitalu janatu léeg-léeg noonu la demee bu dee hôpital ay moom hôpital Seexul Xadim hmm. hôpital Seexul Xadim nag euh, mbaanaam ndeysaan ñu baree bari euh, ci malade yi fi ne tey jii bu nee Seexul Xadim moom tur seen Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi nga xam ne moom ngay tudd rek ci ngay daal di naa waaye euh, su duggee moom bu soobee yàlla téeméer junni moom boo fa amee ñeenti fan di nga ko di nga ko di nga ko fay. doxee na daa wuuteeg tur tax am na benn maire boo xam naa yërmande daal moom. Hmm. amul ci hôpital yi hôpital bu mu mën a doon rek. Hmm. maanaam daal yërëm askan wi. Hmm. ak it maanaam nit ki feebar ñu gaaw xettali ko rapidement. dee moom nga xam naa ku fa dem te tombé nga ne ci cat li moom. man doo far dugg day daal di fara dee moom moom kay moom xanaa ke deesaloo bari mhm. man faa dugg ñu di ko romb yi dem ak ñu di ko romb ba kër muy mën a dugg mhm. kooku rek kay mën na caarac waaye mboolem way sonn yi moom mhm. am na ñoo xam ne ñu dugg ca euh, entre ba sax farfaatu bi ndax dañ ko négliger mu ngoog euh, sëñ Mass jërëjëf jërëjëf ci jàngat bu am solo boobu muy lu mat a bàyyi xel